وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا seen mbokk seen xarit Mouhamadul Busayri ibn cheikhihi alxaaji Abbas ñu ngi leen di ziyaara bu baax di leen ndokkale ci koor gi delsiwaat nañu ci suñu jotaayu tafsir bi nga xam moom lañ tàmbale woon tafsir gi nag maanaam ñu ngi yemoon ci aaya juróom-ñett fukkeel ak e, juróom ñaar kon kon tey dañu commencé ci aaya juróom-ñett fukk ak juróom-ñett fi yàlla di waxe wa qaalu taxada arrahmanu waladan maanaam dégg nga e, yéeféeri liñ wax dégg nga yéeféeri liñ wax yéeféeri neen bu ma nee yéeféeri na mooy ku dul juif yi nee nañu Uzayr doomu yàlla laanahumullah chrétiens yi nee nañ Isa doomu yàlla laanahumullah mushrikuun yi mushrikuun yi nee nañ nee nañ euh, malaaka yi ay ban banaatullah doomu yàlla lañ ñoom laanahumullah jullit yi nee nañ ñii ñu tudd ibadullahi ay jaamu yàlla lañ rahimahumullah isa abdullahi wa rasuluhu uzair abdullahi eh, eh, alsaalih malaaka yi cibaadun mukramuun laa yasbiquunahu bilqawli wa hum bi amrihi yaamaluun kon eh, képp koo xam ne jàppe nga kenn muy doomu yàlla rek yow ab yéeféer nga wa qaalu ñu ni ittaxada arrahmanu waladan yàlla mi nga xam ne mooy arrahman de am na kum jàppe doom maanaam waxuma la fen wi ci am rek waxuma la fen wi wante wax ju rëy ji rek yàlla ni laqad jitum shay'an iddan laqad jitum yéen day dikk ngeen ñëwe ngeen indi ngeen indi ngeen iddan lu rëy a rëy ab mbir mu rëy shay'an iddan maanaam shay'an iddan iddan ñetti loxo da cee nekk man nga ni iddan من لني شيئا أدا شيئا إدا شيئا أدا أك شيئا آدا على كل حال bi ci gën a siiw nag mooy shay'an iddan bi wante iddan al iddu mooy lu rëy yéen ñi wax ni yàlla jàppe na nit ja am na comme jàppe doom wax ngeen mbir mu rëy rëy rëy yàlla wax na ci beneen aaya kabura kalimatan taxruju min afwahihim in yaquluuna illa kadiban wax ju rëy lañ wax wax joo xam ni takaadu samawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu l ardu wa taxirru l jibaalu haddan wax joo xam ne takaadu samaawaat asamaan yi xaw na ñoo yatafattarna xotteeku minhu ci min googu nekk ci minhu yaani min ajli hada alqawli alxabis alazim maanaam wax ji wax nii wax ji ñu wax nii asamaan si xaw na cee xotteeku moo tax minhu ay min al qawli lii loolu yi nga xam ne dikke nañ ko loolu asamaan si xaw na cee xotteeku wa tanshaqu al ardu suuf si xaw na cee xar moo tax gis nga dooni euh, infitaratil ardu déedéet ndaxte infitar ci asamaan la la asamaan la méngool façon xottiku googu asamaan xam nga suuf du xotteeku day xar suuf du xotteeku day xar xar gi muy xar nag moo tax yàlla ni wa tanshaqu l ardu inshiqaaq kon inshiqaaq al ard la méngool infitar asamaan si la méng moo tax wala yàlla ni ida samaun fatarat ba muy wax ci suuf si daal ni ida samaun shaq ida samaun shaqat wa adinat li rabbiha wa xuqqat wa ida al ardu muddat wa alqat ma fiha wa taxal asamaan si dana dana xar dana da dana xotteeku suuf si nag du xotteeku dafay xar moo tax inshiqaaqu al ardi ak inshiqaaqu sama ñaar yëpp moo ñëw ci alquran ida samaau inshaqat ida samaau infatarat wante suuf si nag moom euh, moom infitaar amul ci suuf si inchiqaaq moo am ci suuf si inchiqaaq nag day am ci suuf si am ci asamaan si wa tanshaqu l ardu suuf si xaw naa xotteeku bi ñu waxee ni yàlla am na doom maanaam xoolal chrétiens yi loolu dañ koy loolu buñ koy wax seen boo ko defee li gën a metti nag mooy jullit ñi nga xam ne ñoo am euh, euh, euh, télé ñoo am télé ñoo am fréquence ñoo am lépp ñooy génneel chrétiens yi par dimanche ñu naan doomu yàlla lu bonongo lu bona ñu noonu ku ko ci def tamit yaa ngi dimbali chrétiens yi pour seen yoo wax yu bon yii ñu koy wax léeg-léeg nga gis koo xam sax dafay damu daan ni man man rek la sama sama man rek mooy teele boo xam ne keroog keroog guddi le vingt quatre décembre direct laa leen doon defal ñëpp di seetaan ñu naan doomu yàllaa kii kenn xamul ba bët set yow jullit bi boroom tele bi ngay damoo loolu yow te dégg nga yàlla ni takaadu samawaatu yatafattarna minhu asamaan si dégg lii mënu koo muñ xaw na ca xotteeku watan shaqul ardu suuf si maanaam xaw naa xar bi mu déggee lii montagne yi wata xirul jibaalu montagne yi xaw naa xaw maanaam xaw naa daanu jibaali hëddan nekk lu mokk rumbox maanaam lu lu lu mabb montagne xaw naa daanu daanu koo xam ni day mabbu taxirru habdan montagne xaw naa daanu yaa ngi dégg mabbu habdan mabbu bu mabbu mabbu mooy toj to tojana parce que màbb mooy loo xam ni dafa dafa wàcceendoo dafa wàcceendoo tojandoo lenn li ne ci kaw lenn li maanaam lenn li day am luy jiitu am am yeneen yu ne ci kawam am yeneen yuy wàcc ànd ak wàcc ci kawam di wàccandoo loolu mooy màbb waaw léegi asamaan lu tax mu xaw a xar mu xaw a xotteeku ndax mer suuf si lu tax mu doon bëgg a xar ndax ndax mer montagne lu tax ñu doon bëgg a wadd ñoom ñëpp màbb lu tax mer léegi doomu aadama bi nag moom en tant que jullit ñuy jël sa paix di ci génne wax yu bon yi yow nga nga jàpp ne sénégalais Sénégal dëkk démocrate la kenn ku ne am nga droit wax yow jullit bi nga koy génneel chrétien bi loolu loolu du ñun euh, la ci waxal wante bis bu taseeg boromam billahi dana xam ne mi ngi doon def lu bon xam nga poroblème mooy ni tey def lu garaaw lu mel nii ci yàlla may ko wërsëg mu ubbi teleem tele bii mu war cee jaamu yàlla di ci génnee loo xam ni jullit yi dañ ciy jariñoo bu demee ci bàmmeelam gis fa leer gis fa ay xéewal jullit ñi di jariñoo ci teleem di am ay di jàng seen diine tuyaaba yi di ko fekk fu mën a nekk moo xam mu dund moo xam mu génn àddina wante déedéet dañuy bàyyi ay chrétien ñu dugg ñu ñu ñu dimanche bi nekk ñuy ñëw di wax lu leen neex naan yàlla am na doom télé bi lu bon lu ñu ko ci def bàkkaar yi di ko ci fekk ak fu mu mën a nekk ndax moo ubbi télé bi bàkkaar buñ ca def bàkkaar booba yow sa ngi ñëw luñ ca def moo tax képp kuy ubbi boo nga xam ni ngay def lan kuy ubbi tele ñu cay seetaan xoolal li ngay xoolal li nga li nga ubbi lan la xoolal bu baax li ngay def lan la benn muy ay tuyaaba yu bari yu lay ñëwal ak foo mënti nekk wala ay bàkkaar yu lay ñëwal moo xam sa biir bàmmeel ak foo mënti nekk ku ubbi télé na na xool bu baax lim la li mu dem def waaye ubbi télé ngir ni damay business affaire àddina rek di bàyyi tele bi yu di ci génn bàkkaar di am yu di ci génn bàkkaar di am nga koy am bàkkaar bis bu nekk ñun la bàkkaar yi de sa télé ba la yow fekk yow yaa ngi ca biir bàmmeel yu yu suul bàkkaar yi sa télé ba la bàkkaar yi sa télé ba nañ ci bàyyi xel ku ubbi télé ku ne na fexe télé bi def ci loo xam ne ay tuyaaba la koy ñëwal ëllëg yowmal qiyaama la koy ñëwal ci bàmmeelam la koy ñëwal ay tuyaaba la koy ñëwal ak fu mu nekk même bu deewul même bu dee dund kon gis nga ñoom wax jiñ wax ni yàlla am na doom loolu maanaam bu fekkente ni asamaan si moom réaction am nii la suuf si lii mooy réaction am montagne léegi ñun suñu réaction mooy lan ñun xanaa dañoo war a tas ñun ñun jullit ñun ñi nga xam yàlla daf ñoo sant ñu ñu koy jàmm xanaa ñun dañoo war a tas dañoo dañoo war a ñun dañoo war a seer nañuy bàyyi xel bu baax a baax nañuy bàyyi xel bu baax a baax loolu léegi loolu lu tax an daaw lirrahmani waladan asamaan si xaw naa xotteeku suuf suuf si xaw naa xotteeku asamaan xaw xaw naa xar montagne yi xaw mabbu mabbu mokkandoo daanu mabbu mokk xaw na koo def lu tax an daaw an ni an bii moom la wax an ak tafsiriya an an ci ni rek daaw lirrahmani waladan dañoo woote dañoo wooteel yàlla doom dafa am loo xam ni dañ koo wooteel suñu boroom mooy lan mooy doom dañoo askane doom ci yàlla dañoo askane doom ci yàlla garab yi sax garab yi sax dañoo am lu leen naqari bi ñu waxee lii garab yi sax dañoo am naqari kaabul axbaar nee na xadabat almalaikatu wastaarat annaar xiina qaalu ma qaalu malaaka yi mer nañ yaa ngi dégg malaaka yi mer nañ asamaan euh, ki safara si sàkk maanaam sàkkoo naa takklu maanaam sàkkoo naa tàkk ngir lan ngir mer moom bañ waxee liñ wax du wax ju ndaw de billaahi du wax ju ndaw déedéet du wax ju ndaw de déedéet ñëw na ci buxaari ak muslim yonent bi ni innahum yajcaluuna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yuaafihim xam wax ji daw yaram wax mi ngi nii ñoom ña ngay wutal yàlla doom ak di jël nit di ko askan ci yàlla te yàlla moo leen di wërsëgal di leen may aafiya yarzuquhum wa yuaafihim te yàlla nee na wa maa yambaxi lirrahman wa maa mënut a nekk yelluwul mukk mukk mukk mukk lir ci di ñeel yàlla mi arrahman an yettaxida muy jàppe waladan ak doom yellul yàlla yellul ci màggaayam muy jël kenn rek muy jël mbindeef di ko jàppe doom doon malaaka yi sax màggaayam ci boppam màggaayam ci boppam moo nanguwul yàlla di jàppe kenn doom yàlla màggaayam nanguwul loolu wa maa yambaxi lir rahmaani an yattaxisa walada doom xam moo koy kan moo ko soxla mooy ñun mbindee fi ñun mbindee fi ñoo soxla doom wante yàlla mi nga xam ne mooy mooy mooy mooy ki mooy alxaaliq moom ganiyun an il lu muy doy doom soxlawu ko wa ma yanbagi lirrahman an yattaxida waladan in kullu man fi samawati in amul kenn amul kenn ku ne ci asamaan si in bi inu naafiya la amul kenn ku amul kenn koo xam ne yaa ngi ci asamaan si wal ardi ak suuf si illa lu dul aati arrahman dina ñëwal ëllëg yàlla mi rahman abdan nekk jaam amul kenn ku nekk ci asamaan wala suuf si lu ëllëg yowma qiyaamati suñ borom te ab jaam nekk jaam nag ñëpp kenn ku ci nekk boy da yow ñëw nekk jaam jaamu yàlla subhanahu wa taala moo xam muy malaaka yi moo xam muy nit ñi yépp a ni yawma tashaqqaqu yawma tashaqqaqu samaa'u bil wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila yàlla nee na wa jaa rabbuka wal malaku wal malaku saffan saffan malaaka yi de ñëppay ñëw nekk ay jaamu jaamu yàlla subhanahu wa taala ñëpp ñëppay ñëpp ñëpp a ñëw in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani ab abdan ñëppay ñëw nekkug jaam ñëpp ay jaam lañ ñëpp ay jaam lañ góor ak jigéen ak mag ak ndaw ak yëpp ñëpp ñu ëllëg yowm alqiyaama illa aati rahmani abdan maanaam takk na la ñoom ñëpp takk na la ñoom ñëpp wa addahum mu kenn ku ci rëcc kenn kenn kenn góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñeeg a yowmal qiyaamati ñu njëkk ñaat ñu mujj ñaak ñépp ñëpp yàlla takk na leen compté leen teg na leen compté na leen ñëpp yowmal qiyaamati ñépp ay amul kenn ku ci kenn ku ci réer te loolu kët yàlla subhanahu wa taala dajale leen du daara du daara maanaam dajale bu banque bu yomba yomba yomb sax la xasrun alayna yasir la yàlla wax wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardan wa kulluhum ñoom ñëpp nag aatihi da ngay ñëwal suñ borom fardan nekk lan nekk ab eh, yow dong booy ñëw doo ànd ak dara doo ànd ak alal doo ànd ak alal doo ànd ak doom doo ànd ak am ko doo ni kii mooy sama eh, eh, xarit ba doo ni kii mooy sama papa ja doo ni kii mooy sama sëriñ ba doo ni kii mooy sama taaliba yow dong dong dong dong wa jaat kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid kenn du ànd ak yow fardan inna alladina amanu yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo gëm ndeysaan gëm wa amilu tey jëf alsalihat ay jëf yu baax maanaam al amal alsalihat saalihaat sifa la mawsuuf ba dañ koo xadaf loolu arab da koy indi bu lu bare bare bare ñëw na ci alquran lu bari naat ak manuut ñu xadaf naat bi léeg-léeg ñu xadaf manuut bi waaye xadaf manuut mooy li gën mooy li ëpp wa amilu saalihaat saalihaat mooy al amal al amal saalihaat amal googu dañ koy xasaf bis bu nekk ndax bu nee saalihaat ñu xasaf amal loolu mooy gën a mooy gën a rëy sax ndax nga xam ni jëf ak wax ak pas-pas ak lépp da ci dugg day dugg ci saalihaat léeg-léeg arab lay deme arab léeg-léeg noonu lay deme dafay maanaam day xadaf manut léeg-léeg mu xadaf naat moo tax ibn malik di wax wa ma min almanuti wannaati uqil yajuuzu xadfuhu wa fi naati yaqil maanaam ibn malik nee na am na ci li nga xam ni am na ci naat ah maanaam naat buñ ko xamee dagan na ñu xadaf ko manut buñ ko xamee dagan ñu xadaf xadaf naat nag moo gën a tuuti xadaf naat lu ci mel ne yàlla nee an an yàlla nee na an imal saabixaatin déedéet kooku xadaf manut la yàlla dafa ni maanaam ci ci bi ñuy nettal ci xadar أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كل سفينة أي لا سفينة صالحة صالحة dañ ko xadaf lan moo ñuy war ni saalihatin moo fi nekkoon ndax ndaxte gisoo mu ni fa a fa aradtu an aibaha ma bëgg ko ayibal kon kon kon buur bi ne suñ kanam bépp gaal gu baax wu gis da koy jël waaye du du baal gaal gu mu gis rek déedéet gaal gu baax moo tax kii ba kii ni fa aradtu an aibaha moo tax bañ demee ba buur ba gisee ni gaal gi kat gaal gu guñu gu guñu ayibal la no da koo bàyyi kon saalihatin mooy mooy mooy naxt bi wante dañ ko dindi waaye loolu bariwul nag kon indal ladina amanu ñi nga xam dañoo gëm yàlla gëm ci seen xol gëm ci seen wax di ko wax di wax aman naa di wax ni gëm nañ yàlla wante gëm ci seeni cër gëm googu nag muy feeñ ci jëf moo tax suñu abbas wax ci wala falam bi daal ni sa woote am yàlla du doy ci ay wax jëfal ñu gis ngir yàlla rek samu sax wa amilu tey jëfe ne alsaalihat jëf yu baax yàlla nee na ñooñu sa yajaalu lahum dana leen defal arrahman wala arrahman euh, euh, euh, subhaana yani saar bi aaya bu njëkk ba day gis ci ci ca commencement ba rahma amoon na rahma fi muy jeexeet aaya bi eh, bi nga xam ne moo tegu ci aaya bi mujj bi arrahman ñëw na ci saar bi daal wax dëgg yàlla eh, suuratu rahma la ñi nga xam dañoo gëm yàlla tey jëf ay jëf yu baax sa yajaalu lahum arrahman rahman yàlla mi rahman daa leen defal lu mu leen defal wuddan wuddan maanaam lan ak mbëggeel ku leen gis bëgg leen ku leen ku leen yàlla bu la bëggee ñépp bëgg la bu ma nee ñëpp bëgg mooy ñu baax ñëpp bëgg la bëgg ci boppam yàlla defal nit ñi bëgg leen moo tax ñu na ci xadis abi hurayra radiallahu anhu comme ni ñëwee ci imam ahmad hanbal ci musnadam euh, yonent bi ni inna allaha ida ahaba abdan daa jibril fa qaala ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu qaala fa yuhibbuhu jibril qaala summa yunaadi fi ahli lsama inna allaha yuhibbu fulanan qaala fa yuhibbuhu ahlu lsama summa yuudau lahu alqabulu fi l ard wa inna allaha ida abgada abdan daa jibril fa qaala ya jibril inni ubgidu fulanan fa ab fa abgiduhu fa qaala fa yubgiduhu jibril summa yunaadi ahla fi ahli sama inna allaha yubgidu fulan fulanan fa abgiduhu qaala fa yubgiduhu fa yubgiduhu ahlu sama summa yudacu lahu albagdaau fi l ardi yàlla nañ ci yàlla xadis bi xadis qudsi bi euh, yàlla yonent bi na yàlla bu bëggee jaam bi yàlla nañ yàlla bëgg day wax jibril ni ko jibril man de bëgg naa diw bëgg ko yow tamit jibril daal koy bëgg daal woo ci waa asamaan ne yàlla bëgg na diw yàlla bëgg na diw waa asamaan yi daal koy bëgg bu ko defee ñu ñu yàlla defal ko ak nangu ak nangu ci suuf si mooy lan ku ko gis bëgg ko ndeysaan ku ko gis bëgg ko ku ko gis bëgg ko wante yàlla bu yàlla bañee jàmbi danaan jibril man de ku bañ naa diw maanaam man ku bañ diw la diw dama koo bañ bañ ko yow tamit jibril laa koy bañ daa di woote ci asamaan daa yàlla bañ na diw bañ leen ko tamit ñëpp waa asamaan koy bañ yàlla defar ko ak mbañeel nag ci suuf ku baax ku ko gis bañ ko ku baax ku ko gis rek daf koy bañ ku baax ku ko gis bañ waaye gis nga ahlul iman ñi nga xam ni dañu am ak gëm yàlla man ma ni la ñooñu fu ñu gisee nit ku yàlla bëgg dañ koy bëgg ndeysaan moo tax Usmaan ibn Affan Usmaan nee na maa min abdin yacmalu xayran aw charran illa kasaahu allahu azza wa jalla ridaa amalihi jeex na xalas ma min amul benn nit kuy def lu baax wala muy def lu bon lu dul ni yàlla sànge na ko mbalaanum la muy def bu fekkente ni lu bon lay def bu fekkente ni lu baax lay def dangay gis ni yàlla daf koy sànge mbalaanum lu baax koo gis bëgg ko bu dee lu bon lay def nag yàlla da koy sànge mbalaanum lu bon ku ku baax koo gis bañ ko ku baax ku ko gis bañ ko sayaj'alu lahumu rahmaanu wuddan waaw waaw al wudd mooy mahabba mahabba fi nnaas fi dunia comme ni ko comme ni comme ni ko mujahid waxe yàlla dafa lay defal cofeel goo xam ni nit ñi la koy bëgg ci àddina bi cofeel goo xam ni dala koy defal ci àddina bi alquran ji nag yàlla neen fa innama yassarnaahu fa innama yassarnaahu yàlla neen alquran ji dama ko yombal bi lisaani ko yombalal la ko sa làmmiñ yow mu mooy lan mooy defal la ko mu nekk làmmiñu arab bu leer nañ ngir lan li tubashira ngir nga bégal euh, almuttaqina ñi nga xam ñoo ragal yàlla nga xam ñoo wuyu yàlla ñoom ñoo dëggal yonentam ba ragal yàlla di sellal seen jaamu yàlla ñooñu euh, dama yombal alquran bi salaam mi ngir nga bégal leen ci waaye wa ngir nga xupp ci bihi ci alquran ji man nit ñoo xam ni luddan luddan al luddu mooy ñu mooy koo xam ni euh, fenkat al luddu koo xam ni dafa tëx mënta dégg dëgg mënta dégg dëgg al luddu koo xam ni dafa jàdd yoon wu jubwa dafa jàdd kooku euh, alquran ji dama ko dama ko yombal salaam ngir nga xupp ci nit ñu bon ñooñ wakam bari na lool ahlat naa ñu alak qablahum la leen jiitu ñoom min qarnin ci ay xeet ci ay nit yoo xam ni ñoo leen ëppoon doole fuuf ëpp leen i pale fuuf ëpp leen alal fuuf ëpp leen ay xel fuuf gën dàq leen a xeex gën leen a jàmbaare xam gën ëpp leen ay ngànnaay ñooñu ñëpp yàlla nee na faagaagal na leen waaw yow hal tuxissu yow mii may waxal hal tu hal tuxissu est-ce que yaa ngi dégg yaa est-ce yaa ngi yëg minhum ci ñooñee ma alag min ahad est yëg nga ci kenn ña nga xam ni alag naa leen bu yàgg est yaa est am na ku ci génn di wax dégg nga ci kenn di wax gis nga ci tànku kenn ah est-ce que gis nga ci tànku kenn rek aw tasma'u wala nga dégg ci lahum di di leen ñeel rikzan ar rikzu mooy mooy baat bu suufe même sax baat bu suufe as sawtul xafiy loolu sa déggoo ko ci ar rikzu mooy assawtul xafi mooy mooy mooy baat bu suufe moo tax shaacir ba ni fa tawajjasat rikzal anisi faraaruha an zahri gaybin wal anisu siqaamuha ar rikzu maanaam baat bu suuf xam nga kon léegi baat bu kawe taxul ñuy wax ndegam baat bu suufee suufee suufee sax déggoo ko ci ñoom rek san loolu gisoo ko kon kon yéeféer yi euh, di rëy rëylu yéeféer yi di rëy ñoom duñu dara ndegam ndegam ñëre la yàlla alak te ñooñu ñoo ëppoon doole yéeféer yi foofu ëppale ay ngànnaay ëppaleen xelu xeex yaa ngi dégg te yàlla alak na ne ñoom ñëpp kon waxuma waa màkk yaakaar naa kon jeexal nañu bi alhamdulillah bi hamdillah jeexal nañu saar bi jeexal nañu surat Maryam euh, li des ci koor gi incha allah dinañu commencé suba surata Taaha surat Taaha dañ ko commencé bi ibnillahi suba incha allah kon euh, jotaayu tey bi foofu lañ koy yemale ci mujjanteelu saar Maryam yal na yàlla may ñu dégg ko topp ko yàlla na yàlla may barke alquran yàlla na yàlla may eh, rammuk alquran ëllëg yowm alqiyama yàlla na yàlla may leeru alquran ak ramm alquran ci biir bàmmeel wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu